tey bu ñu àggee fii ñu dem ba àgg foo xamante ni dañoo gis ni mbas mi mi ngi ci dëkk bi waaye nit ñi dafa mel ni tabaski gi soxlay tabaski bi soxla yi da leen topp ba daanaka dañ koy fàtte moo tax ñu ni kat ñun li nga xamante ñu ngi ko doon liggéey boobu ba léegi buñ ko bàyyi mu nax saay nañ continuer wax taxaw ni ñun nañ booloo ànd xeex. Covid 19 nañ booloo ànd jëlee ko fi. problème Covid 19 li tax mu gën a gaaw muy wàlle mooy déplacement yu bëri yi te tabaski ku ne xam ne déplacement yi day bëri moo tax ñu ne dañuy wàcc ci yi def gox à gox dugg ci kër yi wax leen li nga xamante ni mooy enjeu bi wax leen ñu takk seen masque wax leen gan gu ñëw ci kër gi jógee tabaski bu ñëwee nañ ko jox masque mu takk xale yi bu ñuy génn aussi jour tabaski ku ciy dem na nga takk masque kuy dem di julli ji aussi nañ takk seen masque parce que ni bu ko 99 pour cent yëpp doon def ñaar nit defuñu ko ñaar waaw setal loxo yi raxasu lépp loo xamante daal mesure la de protection maanaam lépp dañ ko war def loolu ñun madame le ministre ci lañ ñaax loolu mooy les orientations de madame le ministre moo tax loolu dañ koy def mu ne dañ ko njëkkee fi nga xamante ni mooy goxam ñu ñëw taxaw population bi may leen ak masque ñaax leen li nga xamante ni mooy mesures yi maanaam ñëpp respecté ko tey ji tàmbali nañ ko te gara 3000 masques lañ mobilisé première phase bi nii je pense que dans les jours qui vont venir dinañ tànnaat beneen quartier wàcce fa comme nii ànd ak gox ba ànd ak ñoom sensibiliser leen incha allah ci li muy def nii ala kuli ali man la ko defal parce que moom koñ bi la am comme ku mel noonu bu ñu ko amee te combat bi nekkul un combat politique war na ñun ndaw ñi ñu taxaw mener le combat ni ko madame le ministre di ko defee jël politique teg fële bolé askan bi ñëpp and nekk benn ngir mbass mi génn ci dëkk bi. ñoo wara continuer respecter mesure barrière yi. parce que tamit ku la mëna wax né la fièvre bi def fé jogé na fi dalay nax fièvre baa fi la preuve tay c'est 130 nouveaux cas dont 25 ici de la transmission euh, communautaire. il faut que li ñi di def. waxuma sax ci koñ bi mais ma ngoy wax Cheikhouna l'autre jour né naa ko même bisu tabaski bi dem leen ci juwaay parce que plus de 60 ci ñi nga xamante ni dañuy ñëw di julli si dañu indalé masque wut leen ay jeunes ñu sol ay t-shirt comme ni dem ci juma yi di jox nit ñi ay jox nit ñi ay masque donc loolu boole ci git set gi raxas loxo yi ba mu set. Euh, di moytu rassemblement yi di di di respecter mesures yi moi je pense que loolu buñ ko defee yàlla mën nañu musal ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy mbas mi.